indi leen nuyu gouvernement bi président de la république mu ngoonee dina dalal seen secrétaire généraux yi waaye comme ñun ñëpp mënuñu egg foofu ci palais la république dama leen bëgg yegg yenn kàddu rek wax leen ne ñu sant yàlla bu baax sant ko moom mu ñu may ñu fekkee te tel moom mu ñu may ñu fekkee te tal fekkee te tal fekkee te tal waxtu woo xam ne waxtu wuute la ak li ñu dul noonu yàlla may ñu am na loo xam ne mu ngi fenk indi xar kanam bu bees suñu réew ñu am occasion bu baax boo xam ne Sénégal dina yëkkeeku seexi ay jéego yu tar mu mën a nekk ñu wane ni mën na président wa réew mi ne niñ koy defee ngeen ànd woteel ko ci seen ci ñu gën a bari waaye pour yéene boobu mën a sotti pour mu mën a nekk ko nekk si ñun danga si war a béy sa wàll ci waar wi doo ko xool sa morom xool ndax def na di ko war mooy lan mu ñu gën a defar li gën a bokk ñu sàmm ko ku nekk si ñun li ko war ci waxtu jox boppam réew mi mu def mu jox ko ba mu moot mbokk yi tudd nañ ko sànq bu ñu bëggee suñu réew set bu ñu bëggee mu sell mënuñ ko bàyyil ñenn ñi rek même bu fekkee ne seen cër mooy ñuy tonni mbalit mi di ko defar déedéet fa war a nekk suñu wareef du ñéem bu ñu bëggee Sénégalais yi bañ a yuuxu naan administration bi yéex na nañu xam ne administration bi ñun la ku nekk si ñun am na lu ñu la dénk waaye waaye est-ce que yaa ngi fay ñëw waxtu est que boo fa demee yaa ngi jox gë mbir ma wax li mu laaj yëpp bu dee def nga ko ba mot ngay fajkat ngay vétérinaire ngay gendarme ngay policier nga war a mën a gëstu nag xool sa morom est ce que mu ngi def li ko war nañu xam ne ku yàlla tàccu wax dëgg yàlla war nga góorgóorlu xaw a yëkki say mag fi mu nekk nag bi na ne suñu borom mu ñuy tàccu am nañu conjonction de facteurs yoo xam ne du gaaw a reproduire nañu jàppoo roofoo joxante loxo liggéey pour loolu mën a sotti loolu de mooy message bi nga xam ne bëggoon leen ko dé bëggoon naa leen ko délivrer leen di nuyu leen di sant di leen di gërëm ne leen ni wax dëgg yàlla yéen liggéeykatu Sénégal gàcce ngaalaam yaa ngeen jëf yàlla na suñu borom sàmm sàmm leen sàmm njaboot yi ñoom leen nuyu leen di gërëm